seen mbokk la seen xarit Mor deppi depuis Bergamo Italie moo leen di nuyuwaat yéen ñëpp di leen ziare di wax ne namoon nañ leen ndax am na weekend bu fi jaar te jàngalewuñu bii sax dañoo gëm ne suba dinañ xat rek moo tax ñu bëgg koo def ci guddi àjjuma ji incha allah comme ça ñu bara bañ a toog lu yàgg. di leen balaq di leen balaq di ñaan yàlla mi ba yal na yàlla boole ñu jéggal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen yàlla mi ko am te du ko jeexal yal na bur yàlla boole ñu. jéggal mbooleem suñuy rëq-rëq te dimbale ñu te saxalal ñu dimbalam comme ni ngeen ko xamee ñëwaat nañoo ak yéen ci njàngalem code de ci làkku olof di ñëwaat rek fiñ ci toll woon su njàngale mi passé numéro 32 ak 33 ñaari tabla la yoo xam ne bu ci ne ay table yu njàngale yoo xam ne la muy signalé rek mooy matériel yoo xam ne day daanu ci kaw tali bi lu mel ni ay doj yu mag yoo xam ne benn nga dal ci kaw mu yàq sa oto wala nga dal ci koom euh, doo mën a jàll ma nga mbëkk ko bokk xam nga am doj boo xam ne oto bi mën na ko jéggi mu yàq ci dara am boo xam ne boo dalee ci koom mook dal ci miir bi ñoo yem ñaar yëpp benn baaxu ci kon ay xeer yu ngande mm, comme ni ma ko waxoon ci vocal ba wala ay doj nuñ ko mën a tuddee ci wolof ñaari baat yooyu maa ngi leen koy bàyyi ngeen firi leen ma ko ban mooy bu sew bi ak ban mooy bu dijj bi ñaari tableau yooyu lañ mujjee woon ci bi ñuy mujjee jàngale kon ñëwaat nañ ngir jàngal leen yeneen tableau yu njàng yi nga xam ne ñoo ci topp. waaw ñu indiwaat yeneen ñaari tableau rek ñaar yëpp di yuy njàng muy numéro 34 ak 35 ci code de la bi ñuy ay sémaphore yoo xam ne moom la ñuy wax feu rouge ci français kon olof amalu ko tur xanaa ñu tuddee ko làmp yi joxe ndigal ndigalal dem ak taxaw ak gaaw jàll. ndigalal dem mooy làmp bu werte bi ndigalal taxaw mooy làmp bu xonq bi bu mboq bi wala bu jaune bi moo bu orange bi dañ wax couleur mboq mooy bi nga xam danaan gaawal jeexal yoon wi gaaw li nga fi temps bi nga fi amoon mi ngi jeex gaawal jàll jàllal gaaw wala gaawal jàll jàllal gaaw sax la war a doon gaawal jàll ki commencé gud lañ koy wax jàllal gaaw mooy ki euh, gaawal jàll jàllal gaaw mooy nga jàll te gaawtu commencé gu woon jàll bi waaye boo doon commencé ci digg bi gaawal jàll lañ lay wax gaawal jàll mooy kee ko commencé ba ci digg bi kon lampe bi sone bi gaawal jàll la gaawatul ci jàll gi ngay jàll yaa ngi ci ba pare mais gaawatul nga jeexal ko ñaari table yi nag li tax ñu di ko def dafa am ci yoon rek yoo xam ne ci lay nekk yenn saa yi sémaphore yu bare bare ñu ngi koy fekk ci feu rouge yi kon mooy làmp làmp yi màndargaal yi làmp yu am màndarga yi comme olof lañ bëgg a wax nag danañ ci sonn waaye kii dégg italien day xam ne semafro mooy feu rouge ki ko déggul ci ñaar yëpp mu jàpp ne làmp yu màndarga yi moom mooy semafro mooy feu rouge làmp la yoo xam ne ñetti couleur la am bu xonq bi mooy taxawal bul dem bu verte bi mooy demal bu jaune bi mooy mottaleel gaaw la nga doon jàll gaawal mottaleel li ngay def gaawal jeexal li ngay def kooku ku commencé jàll ba xaajal lañ koy wax euh, dafa am yoon woo xam ne lañ cey daw day ëpp cinquante kilomètres à yenn yoon a ngi yoo xam ne maye nañ ñu daw fu lu ëpp cinquante kilomètres à ma répété waat ko pour code de la ba cinquante kilomètres à du danger ci kiy dawal du danger ci chauffeur bi ndax lu tax mooy xel woowu ndaw na ndaw goo xam ne lu la bett nga mën a taxaw waaye su ko ëppee nag lépp luy waral sab taxaw rek dañ la koy yëgal ma répété waat ko oto buy daw ba cinquante kilomètres à l'heure code de la dafa jàpp ne danger amagut ndax xel woowu lu la mën a bett da nga taxaw ba invité accident ba doo daal ci kenn waaye su xel wi weesoo foofu nag lépp lu lay wax ne mën naa jur accident dañ la ko war a yëgal lu jiitu bépp tali bu ngeen fekk daw ba mu yàgg nga yem ci feu rouge wala sémaphore wala lampe yu am mandarga yii te kenn yëgalu ko balaa nga caa yegsi jàppal na yoon woowa kenn du fa daw lu ëpp cinquante kilomètres à l'heure ma waxaat ko lépp tali daw ba yem ci ab feu rouge wala sémaphore ci italien wala lampi mandarga yi te kenn yëgalu la ko lu jiitu nga yegsi ci làmp yi pour nga préparer pour taxaw na la wóor ne yoon wa lañ fay daw ëpput cinquante kilomètres à l'heure gi ma waxoon léegi ne code de dafa jàpp ne ba cinquante kilomètres à l'heure dansé amagul ci oto kii dawal lu ko mën a bett mën naa taxaw suñu ñetteelu tableau ñaar yi jàng nañ ko boole leen ci ay vocal yu bari waaye ñetteel bi mooy tableau boo xam ne tableau bu ñàng la comme ni ngeen ko xamee defe naa léegi nit ñi war nañoo xàmmee nag tableau yu ñàng yi borom ñetti koñ yi ñaar ci suuf nday joor càmmoñ benn bi féete kaw am na beneen bu mel nii bu dara nekkut te benn bi mooy féete suuf ñaari féete kow jàngoon nañ ko fi li tax ñuy tu toujours position bi da ciy am solo parce que table bi nekkul rek dafa am ñetti koñ lu xonq nekk ci pegg bi rek mu jeex déedéet beneen mën na mel noonu te def leneen wala sax defut dara defut dara bi sax nag laa gën a xam waaye li tax ma indiwaat ko mooy table bu ñàng yi toujours lu ñàng lay wax bu ci ne nag dessin ba ca ne moom lañ leen di expliquer bii yéen a gis ñu def ci avion euh, code de la dafa ne boo doxee ba gis table bi foofu téeméeri mètre ak juróom fukk da nga fa jot bërëb boo xam ne avion yi dañuy jege suuf mu bëri dañu laaj question bi ndax ci pegg aéroport la mën na ko nekk mën naa bañ a nekk aéroport ndax ñi nga xam ne dañuy jàng dawal avion te dañuy naaw di jege suuf si lool bërëb yooyu mën nga ko faa fekk mën nga ko fekk ci pegg aéroport moo xam bu ñuy naaw jóg la wala côté bi nga xam ne bu ñuy waaje wàcc si ñaar yëpp dañuy jege suuf nag li la fi code wax daal mooy nga sóoraale boo déggee beneen riir nga xam ne du sa oto bi bu dee guddi nga éviter bul taal làmp yu xàññaaral yi bul taal làmp yu xàññaaral yi boo gisee table bii xamal ne jege nga foo xam ne avion yi dañuy jege suuf bu ñuy naaw moo xam aéroport la moo xam fu ñu leen di jàngale dawal la ñuy jàng dawal avion li la fa dollar mooy prépareel te bàyyi xel ne mën ngaa dégg riir mu gën a foor mi nga yoroon lu jiitu table bi bu boobaa sóoraaleel na avion la moo xam gannaaw la la féete wala kanam moo xam dalaa tiim waaye nga bàyyi xel loolu loolu mooy danger bi mu des nag lan nga fa war a warta def li ñu dafay tere mooy bu dee guddi la bul taal làmp yu xàññaaral yi mën ngaa fitnaal avion yi naaw jege suuf moo xam dafa jàkkaarloog yow wala leneen liñ fa tere daal loolu la kon table bu ñàng la ndox ba mu yàgg nga dégg beneen riir bu bokkul ak sa bos mën na laa fitnal mën na laa jaaxal mën ngaa taxaw mën nga def yu bari waaye boo ko déggee comme gisoon nga tabla bi xamal ne loolu la nga wàññi la nga doon daw ndax nga mën leen a dégg ndax bu réew mi changé nga xam ko bañ a tërëx tërëx yi bi ci des mooy bu dee guddi nga bañ a taal làmp yi xàññaaral yi loolu la code de santaane ci table boobu kon ñoo ngi yem ak yéen foofu ci ñetti table yooyu ñàng yi ñëw ak yéen ci table yi nga xam ne mooy tere donte la table yi nga xam ne demal wala nga mu dem yooyu moom jeex na yi nga xam ne mooy table yi ndigal luñ la forcé jeex na kon ñaari groupe fi des ñu ñëw ngeen ci table bu njëkk ci njàngaleem tey ci tabla yi nga xam tabla yi tere la moom it ñoom ñëpp a niroo daanaka bu ci nekk dafa ron lu xonq wër ko mu am ay dessin nag liñ leen fi jàngal yépp bu ci ne li am solo mooy nga xam ne li tabla tere la mais lan lay tere li muy tere lan la loolu lu am solo la tabla bi nag day tere ne kiy jaar fii daal bu mu ëpp sept tonnes moo xam saretu mbaam nga yor saretu mbaam bu am sept tonnes dañ koy tere mu jaar fii li tax ma tudd saretu mbaam mooy table bi fi ñu koy samp mooy ci kaw loo xam ne poids bi mën a supporter mënta ëpp lii masalan ci ab pont pont boo xam ne pont wu bant la pont wu tabax la pont bu màggat la et cetera ñu ne kii daal moment bi nga fiy transité bëgg a jaar ci yoon wi boo ëppee 7 tonnes dañ la fay tere képp koo xam ne bi nga fiy jaar donte la saretu mbaam mënta ëpp 7 tonnes waaye am na beneen saret bu mën a ëpp 7 tonnes wala bu dul loolu ñu ne oto bokk wala muy camion lu mën a doon kiy jaar ci yoon wi dañ koo tere. mu jaar fi fekk lim poids am di tege ci kaw suuf si muy jaar ci kaw pont bi muy jaar wala ci li muy jaar ëpp na sept tonnes mën na nekk sax pont bascule nag waaye li wér daal mooy jamono bi ngay transiter fii bu gisee table bi su dee sa poids bi ëpp na sept tonnes wàññikul moo xam nag oto nga wala saret bu ngeen ko seetloo am na table bu ñu mës a jàng benn camion bu ñuul lay doon ñu def ci six tonnes cinq cent am camion boo xam ne noonu la mel waaye defut dara bi defut dara trois tonnes cinq cent la bu ko ëppee mënu faa jaar bi def dara biñ biñ bind numéro bi numéro biñ def ci biir bu dee camion toujours bu dee camion laa wax de dafa am moment boo xam dañ ne camion yëpp bopp 3 tonnes bu fi jaar kon duñ ci bind dara bu fekkee cam camion bi 6 tonnes 500 la ñu bind 6 tonnes 500 ci jëmmi camion bi nga xam ne camion bopp tonne 6 tonnes 500 la kaar mën naa dem waaye table bii ñu leen woon kaar sax bu ëppee 7 tonnes mënu fay jaar ndem na naa saretu mbaam nag donte saretu mbaam mënut table bi mooy day tere ku transité fii te sa poids ëpp sept tonnes ak suñu ñaareelu table ci table yi tere yi gis ngeen ko moom it dafa rek même forme yi la dessin yi ci biir moo wuute waaye bu ngeen ko gisee nag bi yoon di dañ fi wone benn acier boo xam ne ci ron oto yi lay monté waaye surtout camion yi ci gannaaw ndax oto moom ci kanam ponu bi jëm ndeyjoor ak càmmoñ war a jubbanti daawul bëriwul lu muy doon ñaari pon <clears throat> kon ponu yu seexale la acier bi ngeen gis noonu ñu jël benn flèche samp ko ci digg acier bi def ñaari pënu seexale leen ci côté ndeyjoor def ñaari pënu seexale leen côté càmmoñ ci ñu koy wax jëmel laati roote jemeel laati maanaam ay pënu yu ñu seexale dessin bi nag problème bi du problème mu pënu yu ñu seexale waaye code de la route day jéem chaque fois mu indi desin boo xam ne ñëpp daañ ci dëppoo ba mën a xam lan la li mu bëgg a wax man maay wax ne code de amut làkk lépp loo ci gis ñu def ko numéro rek ma parce que pardon ñu bind ko rek xamal ne loolu day expliquer dara ci làkku ña moom tab la booba waaye code de la route nekk làkk parce que ñépp a ko bokk kon ki nga xam ne moom déggut làkk bi nga xam ne lañ bind ci tableau yooyu du ko xam moo tax code de la ay màndarga la ay màndarga ba mu jeex leneen lu ci rax numéro lay doon màndarga numéro mandarga numéro ngeen bàyyi xel loolu fii li muy jàngale mooy day tere ku fi jaar koo xam ne li nga chargé marchandise mi acier bu ne la ca tege ci poids ëpp na deux tonnes cinq cent masalan boo yoroon vingt tonnes bëgg fi jaar te war ko teg ci benn camion danga war a fexe ba ñeenti ñeenti acier ne ci acier pardon di tonnes kon pardon acier bu ne def deux tonnes cinq cent ñeenti acier yi boo boole ñaar muy cinq ton yeneen ñaar te cinq tonnes boobu lañ lay may nga jaar ci yoon wii kuy dégg vocal bi nag te gis senegal ni mu mel surtout booy génnee Dakar jël route nationale bi ni goudron bi tàngee pois bi fay jaar ak surchargement de pois bi ñu fay teg tax na tali bi yépp dafa am canalisation bu yàlla ci tawee ci digg tali bi la ndox miy taa boo yoree oto bu ndaw léegi dootoo jubbanti pano yi télé bi ci boppam mooy jubbanti say pano lu ko waral mooy lu mel nii lañ fa terewul benn oto dafay jaar assis bi def temps de poids beneen def leneen beneen def leneen wala boog ñi tere lii lu mel noonu la ñuy bañ lu mel noonu la ñuy bañ su fekkee da ngaa bëgg a lu bari dangay yor acier yu bari acier bu ne nga teg ca keese deux tonnes cinq cent bu mu ko ëpp bu boobaa di nga mën a jàll léeg-léeg ci seetlu armée russe lu ci mel ni satan 2 wala missile yi nga xam ne dañ koy oto ko yóbbu da ngay gis oto bi day mel ni jaalaal côté ndeyjoor yëpp pënu ci kaw pënu lay doon muy dox mel ni jaalaal buy dox lu ko waral mooy lam sarse diis te bëgguñ koo teg benn pënu kese oto bokkul ak avion avion poids bi boo ko séddaloon ci pënu yi pënu bu ne la mu yeb xaw naa toll ni pënuy camion lañ yebandoor ñoom ñëpp oto nag comme fi muy jaar daf koy yàq wala bëgguñ mu yàqu dañ koy séddale ci gàttal code de la route dafa wax ne table bii képp ko gis ci buntu aw yoon te pois bi nga chargé warul ëpp acier bu ne deux tonnes cinq cent point ku def lopp loolu nag bu la police fekkee dina peese oto bi acier par acier boo ko gisee dañ lay verbaliser soo doxee ci condition yooyu ba accident am fa dañ la def lañ la war a def <coughs> sans départ ci ban réew nga ko defee ndax tere woon nañ fa lii ñi nga xam ne ñooy saytu sart yi ci kaw tali bi dañuy basé wu ci li fa code de la route samp ki defar tali bi mbirum boppam la ki révisionné tali bi ba ñëw xool samp fay tab la kooku mbirum boppam la ka nga xam ne mooy contrôle ndax nit ñaa ngi koy jëfandikoo nañ ko santaane ak bàyyeeko nañ ko tere kooku it keneen la kon ki yor oto dawal war na xam ki defar tali bi wala ki révision tali bi table yam fa samp lan lañ fa tere ak luñ fa def loo luñ fa def loo nga def ko luñ fa tere loo nga bàyyi ñaari table yi kon ngeen xool ko bu baax li muy jàngale bi ci kaw mooy jamono bi nga fay jaar sa poids bi waxut kanam gi waxut ginnaaw waxut acier lépp lépp buñ la boolee warul ëpp sept ton bii ñu mujjee ci suuf nag mooy li nga yëpp lu mu bëri bëri lu mu diis lu mu oyof oyof pneu bu ne acier bu ne bu mu weesu waxuñ nag acier bu ñaari pneu benn loolu moom pour mu leer par acier la wax waxul ak panu yi am ñaari acier yi am ñaari panu rek da koo dessin noonu pour ngeen xam ne acier lay wax moo tax mu dessin ko kon dessin bi jubluwu ci ñaari panu waaye par acier la acier bu ne bu mu jël lu ëpp deux tonnes cinq cent ticket yi ma leen doon wax bokkul ak table ticket mooy loo xam ne day expliquer leneen lu newul ci table bi te mu war caane nag waaye comme waxoon naa leen ne leen table doo ci fekk mbind mukk parce que ñëpp ko war a xam te ñëpp bokkuñ nu ñuy jàngee ñëpp ay nit lañ waaye ku nekk mbind ya nga préféré làkk ba nga nàmp yenn yenn numéro nga ciy fekk tabla bu mel ni ñaar yi nga gis nii fii ñaari tableau ci ne dama koy jàng muy A ak B A tabla boppam la B tabla boppam la waaye ticket lañ ko mën a tuddee ticket boo xam ne day mottali tableau ticket boo xam ne day mottali tableau dafa am tableau yoo xam ne comme ni ngeen ko xamee ci tableau danger yi ñu ne la. naturellement li code de la route santaane mooy téeméeri mètre ak juróom fukk bala nga yegsi ci ñàng-ñàng bi lañ la koy sampal lu tax mooy kii daw li ci ëpp ci tableau yu ñàng yëpp da ngay wàññi li nga doon daw wàññi li nga doon daw nag téeméeri mètre ak juróom fukk avant moo ciy jaadu yenn saa yi fekk liñ lay wàññiloo wala lañ lay wax ci tableau ba nekkatul téeméeri mètre ak juróom fukk bu boobaa ticket bii ànd ak lettre A ñu def ci trois cent vingt def ci M M yi mooy tekki mètre kon buñ sampee tableau teg ci ticket bii di ticket A muy 320 m yi mooy tekki ne fi nga taxaw noonu di nga dox 320 mètres doog a jot li table bi wax table bi ñu la sampal fii la muy wax fii ak 320 mètres nga koy jot bi ci suufam muy B bu ngeen xamee B bi mu ngi ci côté table bi muy 3 virgule 8 km muy kilomètre km kilomètre lay signifié loolu mooy lii la tabla bi wax te ñu samp ticket bi ci suuf jotagoo ko léegi da nga dox 3 kilomètres yu teg 800 mètres presque ñeenti kilomètres yu manqué 200 mètres doog a jot la muy wax kon ticket yi pour ngeen xàmmee ko bu ngeen ko seetloo ticket bi dara nekku ci loolu 320 m 3 virgule 8 km point dina am ticket yu xaw a mel ni moom waaye leneen la bu ma ci ñëwee laa leen di wan mandarga bi kon bii li muy wax mooy li may wax yegg seegoo ci. waaw ñu ñëw ak yéen ci deuxième ticket. ngeen xamee ko ticket rek ticket mooy loo xam ne dañ koy lonk fenn mu ànd ak dara kon ticket beneen a ngi nii la ngeen gisoon ci bee presque moo ci ne ba pare am différence moo ci ne gi mooy trois cent quatre-vingts la waaye dafa am ñaari flèche yu ko féete ndeyjoor ak càmmoñ ci ticket A bi ngeen ko seetloo comme bee day am ticket A ticket B kon ñaari ticket a fi ne ñaari njàng la yu bokkut donte la benn vocal la ticket A dafa ne fii nga fekk tabla bii ñu takk ticket bi ci suufam li la tabla bi wax yépp pour mu jeex di nga dox trois cent quatre-vingts mètres wax ja doog a jeex masalan buñ ne la woon fii ay nag dañ fiy jéggee tali bi takkal la ticket bi mooy bërëb bi nag yi jéggee tali bi wala xar wala bëy yi la tabla bay wax daal trois cent quatre-vingts mètres la guddee bu weesoo tali ba delluwaat na ca ba nga gisagut ticket bi kon loolu kii dawal war na koo xam kon bépp ticket ak m mooy ay mètre ñaari flèche yi mooy wane guddaayu la muy wax pour ngeen xam ko flèche yi moom luy dox la loolu mandarga ci la ku ci gis ticket bu am flèche nga xam ne la ticket bi wax guddaay ba lii la bokkul ak nag bi nga xam ne amul dara bi nga xam ne amul dara mooy li ma la wax danga dox nangam doog caa yegg yegg goo ca dese na la trois cent vingt mètres wala trois kilomètres huit cent bii nag daf na la fii la commencé ba trois cent quatre vingt mètres mu jeex wala deux kilomètres cent deux deux virgule huit cent euh, deux virgule huit kilomètres mooy deux kilomètres huit cent waa deux kilomètres huit cent mètres wala deux virgule huit kilomètres mooy KM ba ma ma gàttal ko bi yoon kon nag ticket yii ñu leen jàngal ñaar yi la ñuy wax yem bi guddaayu li muy wax la bu dee tali bu yàqu guddaay ba bu dee fu nag yi jégee loolaay guddaay ba bu dee fu ngelaw lu foor di jaar loolaay guddaay ba bu dee tali bu ay xeer tege ci kaw muy fettax loolaay guddaay ba bu dee fu ñuy tere nangam loolaay guddaay ba waaw mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci suñu ticket bu mujj ci njàngaleem tey ni ma leen ko waxee woon mel na ni wax dëgg yàlla ànd nañoo ak yéen ba jeexal mbooleem table yu ñàng yi astaghfirullah des na yu ñàng yi des na ba jeexal mboolem tableau yi demal wala nga bàyyi mu dem jeexal nañu tamit table yi nga xam ne mooy tere wala boog des na ñaar ci kanam daañ ci ñëw am na yeneen yu war jàng moom ñaar rek a ci des moom it jeexal tam table yi ndigal luñ la forcé kon li ñu bokk tey indi mooy gannaaw tableau ndigal lu ñu la force mooy ticket yi nga xam ne moom lañ leen di jàngal ticket ba ci njëkk di li may wax kañ nga koy jot trois cent vingt mètres ba ca topp yor ñaari fenesi mooy li may wax guddaay bi trois cent quatre-vingts mètres kon bi ci topp tey mooy ticketu temps te moom la ñuy mujjee ticket A mooy li liñ lay wax moom vingt quatre heures sur vingt quatre yëpp zéro ba vingt quatre zéro ba vingt quatre mooy jour bi yëpp duñ fa nekk di la bindal tous les jours anglais bi du ko mën a xam duñ la fa bindal tuuti joor ni allemand bi du ko mën a xam dañ la fa bindal zéro ba vingt quatre mooy min bi ba min bi del si fii kenn bu mu fi taxaw point min bi ba min bi bu fi kenn def nanga kon moom ñaare li muy wax day day nekk ci table boo xam ne day màndargaal temps bi bu kenn jaar ci mbedd mi heure bu ne la bu kenn gaaree fii heure bu ne la kon ticket A bi li muy wax bàyyiwul benn heure ci suur bi waaye bàyyiwul tam benn jour kon fépp fu ngeen fekk ñu samp fa tabla bu fekkee luy tere la la muy tere toujours tere ba dafa ne beneen bi ci suuf bu fekkee day tere wala muy digle mbaa muy mayee ñu parkin wala mu koy tere ko ko fa parkin yépp joxewul nag moom jour dana am yeneen tabla yoo xam ne daañ ci ñëw incha allah tabla yooyu danañ joxe ay jour nga xam ne li muy wax pour jour sàngam la li muy wax beneen jour la dañ leen koo anticiper noonu ticket bi ñu leen di jàngal daal ticket A bi ay heure lay wax ticket heure yëpp la wax ticket bi ci suuf heure yi mu wax rek la wax bu dee lu muy tere 7 heures 30 la koy commencé tere ba 19 heures bu dee tableau dañuy maye parking ñu def fële 7 heures 30 lañ fa maye parking ba 19 kon yow yaay xool tableau bi boole koog heure yi 7 heures 30 ba 19 bu dee lu ñuy tere tere ba temps boobu la bu dee lu ñuy maye maye ba temps boobu la. bu dee bee ci kaw nag lu mu ca mën a wax bu dee defe naa leer na mbokk yi ñoo ngi leen sant di leen gërëm di rafet lu ànd beeg yéen di leen jéggalu su fekkee vocal yi bari na te gudd waaye njàngale bi rek moo ko laaj waroon naa mën a gudd fu gën a gudd foofu fuuf kenn ku ne ci yéen na sóoraale mën naa am am na koo xam tey lay commencé déglu suñ ko leeralut ba mel ni ñi ñuy wax ak yenn saa yi ngay expliqué expliqué yu xóot sax ba ñuy xam dara dañuy jàpp ne dangaa xeeb seen xel fekk demeewul noonu sóoraale leen ne ci daara lañ ne te ñëppay déglu te am na koo xam ne tey KM boobu ma doon wax wala KM bi tey la koy doog a dégg te bëgg na am permis comme ñëpp ñu bàyyiwaale xel suñ mbokk yooyu moo tax ñu yaatal ak xóotal ak xóotal ba kiy déglu sax bu am bu xamee xamee ci ko day xaw a tayal waaye ñu ko ñu koy ñaan rek mu patienté xam ne ñëppay déglu te ñëpp war a jariñoo mbir mi ñoo ngi ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp ñu jéem a mucc musal suñuy mbokk di wax tamit ne euh, semaine bi passé mu ñu fekkoon Sénégal Hmm, ca mujjantal ba sax lañ fekkee ji lël bi nga xam ne ministère bi yor wàllu transport terrestre ak aérien ak maritime maritime muy El Malick daj euh, dajale woon na Sénégal yu bari ñu yëngu ci ñetti secteur yooyu doon leen laaj seen xalaat bokk na ca mooy permi à yi nga xam ne moom la seen ñu ciy dolli rek yéen ñi bokk ci daara ji di dégloo nga xam ne tey permis à yooyu ñuy wax lu mu néew néew ñun fii dund nañ ko ay ñu ngi ciy dund gis nañ tam njariñ li eh, xanaa liñ ciy wax rek mooy bu ñu góor góorgóorloo ba xam code de la xam ko xam giñ ko war a xam te jëfee ko ñu ci boolee permis à point yooyu wax dëgg yàlla dégâts yi ñuy am ci dégâts mortels mën na wàññeeku waaye ñu boole ci nag yeneen point yoo xam ne yëpp du xej fii li am solo mooy ñun branche bi ñu nekk tey di leen ko jàngal te ngeen war ko xam muy code de la bu ñu paree keneen ki nga xam ne moo yor mbirum véhicule yi mu wax ci xam-xamam keneen ki nekk ci tali bi wax ci waaye bànqaas yëpp yëpp yëpp yi nga xam ne day laal oto kenn ku ne war naa jéem a defaraat toogaayam ba accident mortel yeeg dégâts matériels yi nga xam ne mooy am ci Sénégal ak accident yu xaaraan yoo xam ne euh, ku nekk ci réew moo xam ne ñu ngi doxal code boo doxee ba yem ci accident wu Sénégal li ngay njëkk a posé question mooy ndax kan moo doon dawal oto bi yenn accident yi mën nga waat ne chauffeur yoru ko woon pourtant waa ji ay ci chauffeur la ne. waaye lim def moom amul benn réew moo xam ne jaar na yoon bu chauffeur bi ñemee defee lu mel noonu am na ci accident yoo xam ne chauffeur bi bu fekkee mu ngi dund dañ ko war a tëj kaso après waaw ah parce que am nañu yor fetal te rëyuñ kenn te fetal a gën a gaaw a rey fuuf ci oto yor oto di sàggan doxee sa bakkan wala doxe sa bëgg xaay wala doxe sa yaa xam condition bu la mën a kii respecté woo daray code de la route ba rey ay nit dañ la war a atte dañ la war a atte doonte la nag permis bi dana la protéger wax nañ ne am nga permis foo ko amee yaa xam noo ko amee waaye lu mën a xew fii da ngay gis ko am permis def dégâts yoo xam dañuy nangu permis bi définitivement dootu ko jot pourtant passé woon na code mais la mu def la après jàng code mën ko am permis ak jëfee ko ñaari choses yu bokkut la nañ yal na yàlla boole yépp ci loxo yi mbooleem ku sa loxo tegee ci volant mooy xam code ak jëfee ko dina wàññi lool musiba yi am ci tali bi wassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatuh